lan la si Abdul Wahab Sharaani wax te Abdul Wahab Sharaani nee na ñi ma bëgg ñëpp bu keroogee Maalik yóbbu àjjana ma bañ ñëpp bu keroogee yóbbu àjjana ñi ma bañ li tax ma di leen yóbbu àjjana suñu borom daf naan ma seen mbir ngoog yaa ko moom li la neex bu ko defee ma leen man ngeen bañoon bu du doon man du ngeen dem àjjana daañu torox nee na suñu borom <laughs> bu keroogee sëñ bi sëñ bi nee na suñu ko bu ñëpp meloon ne yow yow ak si Abdul Wahab Sharaani kon safara genn dégg nga kon li ma waxoon ne li ma waxoon ne am na ci ñun bind ñoo xam ne eh, ñu texee ci moom rek lañu la sàkk waaye sàkk ñuy texee dee ci moom loolu dafa am ci gaay lay def naka noonu boo xoolee lu araam noonu lay defee tâche ci sa xol bi tâche boobu muy def tuub moo koy raxas tuub ba ñu jéggal la ko Cheikh Abdul Wahab Sha'rani yi nee na daanaa am bàkkaar boo xam ne du fekk na sax bàkkaaru lu araam la waaye xilaafu lawlaa la xilaafu lawlaa mooy lii de araamul waaye ku mel ne yow waru koo def loole bàkkaar bi daf may xeeñ ma di ko balu suñu borom di ko tuub di ko ba dootu ba xeeñatuma ma xam ne suñu borom baal na ma ko yow mi nga xam ne amuloo ci kasfu lu tax bàkkaar bi la xeeñ ba nga mën koo tuub ba mu wóor na la ne dañ na ndax xeeñatu la daf lay wóor ne da des ak bàkkaar ba te doo ci yëg dara nga continuer te nee ñu néew na bu nit tëbee def bàkkaar bu mag te tàmbalewul ci yu ndaw bi nga daataan def ci mooy bàkkaar boobu fekk na sa bët a njëkk a jiitu sa xol topp ca nga bañ a ko topp ca ba àgg ci musiba mi. yow Cheikh Abdul Wahab Sha'rani nee na bis bi nga xamee ne ci la njëkk amee fat nee na dafa julli ci jàkka ji takkusaan bay génn keno yi jàkka ji keno bu mu ni muy sabbaa mu génn lépp lu mu dajee rek dégg ni loolu sabbaa ba mu dégg jën yi ca nañuy sabbaa ba nga xam ne miinagul xaal boobu. sabbaa yi nga xam ne lépp lu mu jot guddi bépp ci bala koo lekk dégg ni muy sabbaa buñ taajee ndab li mu dégg ni muy sabbaa bu maree dégg ni mar wi sabbaa buy naan dégg ni ndox mi ni muy jaare ci putam ba ni muy sabbaa bu muy àgg ci biiram mu ñaan suñu boroom dindi loolu ndax mu am mu noflaay bi euh, gane ko tuuti mu noppal suñu borom may ko. julli rakka bu njëkk ba toll ci rakka ñaareel tari fatiha ba mu jeex mu tàmbali li ilaa fi qurayshin nee na ma kabbar tàmbale ci bopp bàqara tare alquran ba ci li ilaa fi qurayshin fekk ci biir li ilaa fi qurayshin ma wàccee te jeexale ko li ilaa fi qurayshin xam nga ne ki wàcce alquran diir boobu nga xam ne mu ngi gàtte ne fi ñuy li ilaa fi ba ca xaaj ba ca digg ba rek mën naa yàgge ci cee fukki waxtu ak juróom te jàng yam fa jàng alquran jàngi tartil la yoo xam ne baat bu ci nekk ballu na maanaaya ballalu lu ya ballu tegtal ak taawilaat yi nga xam ne moom la ko ulama yi taawil <coughs> naka noonu nee na benn bis dem na ci beneen moroomum sëriñam di ko àbb aw taalif téere boo xam ne daf ko bëgg yër téere bi fukki xaaj ak juróom la xaaj yu rëy rëy ma mu àggee sëriñ ba yan téere ba ab taalibam ne ko yóbbul ko Cheikh Abdoul Wahab Sharani taalib bi mu ñëwee fekk Cheikh Abdoul Wahab di julli gee ba di la mu ànd ak moom di julli di la di naafila di naafila di naafila ba nga xam ne njël jot na bi njël jotee Cheikh Abdoul Wahab Sha'rani dal di dellu siwaat ci néegam taalibe ba moom it dal di dem ndax Cheikh Abdoul Wahab yeweegu ko mu dem tëdd tuuti di noppalu bi mu ne gam-gam fekk Cheikh Abdoul Wahab Sha'rani delluwaat na fa mu doon jullee ba dellu si yee ko li mu nelaw daal bu buñ ko seetee ay fukki minute ak juróom ci la war a toll ba mu yeewoo mu ne ko fabal bi nga delloo ko bi mu yenoo téere bi dem ba ci yoon mu naan ci sëriñ si daal ñoo mën a solal nit téere bi ni mu diisee mu àbb ko suma sëriñ ma yenu ko yóbbul ko ko ci guddi gi mu fanaanee julli ba noppi biir set mu ne delloo ko te ubbiwu ko sax ba mu àggee fekk ndekete téere bi mboolem xët wu ci nekk mboolem kayit wu ci nekk Cheikh Abdoulaye Chaani yër na ko ba bind ci ay annotation maanaam def ci ay turra bind ko ci boori kayit yépp ba mu daj bi mu demee ubbi ko jaaxle sëriñam jaaxle. suñu xisa bi ci lasaayikul mbind ni boobu laa ko fekk muy euh, xaw a ub tuuti daal muy xisa euh, abul xajaaj almaxaawi boobu mm, Cheikh Abdou Wahab Charani mu ne dafa amoon moom abul xajaaj bi xaritu jinneem bu ko waxoon ne ko bis daal dama bëgg ñu ànd def lu mel ni fiix féexlu ci kaw asamaan si nee na ne ko bu gëleem taxawee ci sa kanam rek na war na nga sol yére yu diis yu tal ndax foofu dafa sedd te na nga takk say bët tamit fekk néew ma la tekk ko bul ko dindi nee na naka la gëléem googu ñëw mu war ba noppi dal di kii ay bëtam nee yëg ni ñu ngi fitti ci kaw jaww ji ba mu nee ko tekkil rek la tekki waaye nee na mu daal di yéemu ci kaw asamaan si daal muy gis biddiw yi di lang loolu tiital ko mel ne day xotti xolam bi fi mu jaaxle noonu fi mu nee laa ilaha illallah rek nee na tasanteeg malaayika euh, comme noonu alxuraan wax comme yastami al-ana yajidloo shihaban rasadan yooyu nee na mu seen mel ni malaayika jël lu mel na benn kii noonu rek sànni ko jind ji nee fi la noppee xam ku nekk moom di di xalambaay ba daanu ci menn montagne euh, nee na di laajte fa mu dëkk mu sori lool muy summi yëreen di jaay ba nam na mu agsiwaate fekk daanaka ñooñu miraas nañ ko ba fàtte woon ko léegi nag euh, li ma li ma jaaxal dëgg mooy foofu ndax am nga conférence boo defoon ci stadium fële fële kaw la bay misaal nit ki nga xam ne bu déggee dëgg noonu alquran waxee fu man yurid la an yahdiyu yashrah sadro lislam man yurid an yudlo yajal sadro dayqan xarajan jooju ba nga misaal loon ne mi ngi mel ni ku génn couche atmosphérique bi ëmb oxygène bi nga xam ne du mën a noyyi li ma jaaxal nag mooy jamono yooyu te appareil yi amutoon loolu dafa nekk euh, xusuusiya Cheikh Abul Hajjaj al bi ànd gi ma ànd ak jinne yi moom loolu jombul mën na nekk waaye naka la demee ci jaww ja foofee ba di fa noyyi ba dilsiwaat mën a nokki foofee daal ba dilsiwaat ak jëlam boobu mu xabar ñu ko bakkam bakkanam rotu ca diggante la bu ma xawa a jaaxal loolu daal gis nga cosaanal xista boobu espèce bu gént la ci gént la bawoo xam nga ne jinne dafa ragal sedd jinne moom ñemewul sedd bu sedd bi mettee wala ngelaw jinne yi dañuy goy goylu di làqtu ah, àgg isso. ñoom dara day xew jaaxal leen ñu jekki ba mu am nangami at ba ñu àgg ca àgg waaye ba ñu misaal leen ko leen ko gis nga ki nga xam ne dafa tànkoo ndox di sangu benn waliyu fi mu summi koo bay laal lépp ci teg loxoom ci ndox mi rek di tànk mu dal di gis fi saas itam mu kat jëmmam mu ngi toog ne dem na ci benn réew bu sore sore sori ba am fa soxna ba am fa ay doom ba am fa ñaar fukki at ak nangam daal di mel ne ko dafa xirmuñu ko waat gis ne dafa doon sangu mu sangu ba àggale waaye wóor na ko ne loolu dëgg la mu dem ci kër ga fekk ñooñu ñëw ñu ko seet si doom yi gis nga euh, dafa amoon sikk sàkka ci mbirum jinne ci ay jamono mu dem nag ba weesu ko dem nag bi ñu koy won nag gis boobu ba euh, fàtte nu ñu ko tuddee te am na façon gis la boo xam ne da koy gis yow muy lu xew te nit ñi duñ ko yëg waaye day nekk lu lu réel nii Cheikh Abdoul Wahab Al-Harani moom ci boppam ni mu daan wax ne daana war adduna di wax fi mu daan jaar yépp ba gis ba nga xam ne bu fa demoon noonu moo koy gisee la koy gisee te euh, fekk ne yow sa jëmm jugu fi sa jëmm jugu fi waaye nga ni nga xamee ne kooku jëmmam jugu fi waaye euh, fa mu tukki woon ay njaboot yooyu mu fa amoon ba ñu ñëw di ko laajte ba ba ñëw ci ci dëkk bi mu nekk xam nga ki nga xam ne dafa daanu ba mu daanoo maa ngi jëkk a tàmbalee ci euh, li maanaam atmosphère bi ñuy noyyi xam nga bu fekkoon ne jëmm rek ju mel ne jëmmam ji mënula yéeg ba àgg foofa li tax nag mu mën a yéeg ba àgg foofa moo tax la muy noyyi du am changement ndax roo rek fa nekk roo rek la roogaa rooga la du jëm jël ñu won ko nag maanaam mbiri pexe jinne moom lañ ko xam nu ñu ko tuddee maanaam espèce voyance la daal awliya yi def leen di dikkal léeg lekk loo xam ne mais nag boo déggee ñu naan am na wàllu yoo xam ne dañuy jullee toujours tisbaar màkk wala takkusaan toujours màkk lañ koy jullee du ñu leen ñàkk a ñu ñu ngi leen di gis ah, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ak isra bi Sayyidatuna Aïcha booba nekk gul ak moom ndax booba xale la te booba ña nga màkka ñëwaguñu sax madina waaye dafa ne yonent bi sax na ak Ummu Hani wax na ko ne mësuñu koo ñàkk a gis benn yoon koo ñàkk a benn yoon waaye téewul xam nga ci tegtal yi mu leen di jox ba ñuy laaj ñoom mbirum asamaan yi moom làqoon nañ ko dañ naan kay baytul muqaddas na mu fa demee mënu fa ci guddi gi dellu si noonu mu wan leen ñi nga xam ne daf leen romboon ci taatu garab ñu muur seen ndox mu mu muri ko naan ndox mu ba mu jeex dégg nga bu si seetlu nga bu baax may wax xam nga li ma wax dama ne la kii ne jëmmam mosu fee jóg benn mosuñu koo ñàkk a te mu naan ndox koo naan ndox yaa ngi dégg nga loolu sàngaat ko dégg ñi nga xam daf leen a romb seen gëléem réer fekk moom ak jibril seen riir mi moo tiital jëgg jooju ba gëléem nga daw réer moom moo leen tegtal fu gëléem nga nekk te ñu ne jëmmam mosuñu koo ñàkk a gis ba ca mu ca suba sa ba mu ñëwee bi ñuy werante naan dem na euh, Jérusalem ak demu fa Quds demu fa ñu laaj ko ay firnde nan la jàkka ja mel ñu indi jàkka ji teg ko ci kanamam nit ñi suñu ko muy wax di wax di wax ni jàkka ji mel boo ci ci dara ñi fa ñi fa daan dem ñëpp a ngi toogal ñu ne ah wax dëgg xam naa ni mu ko misaal di moom noonu la moom li mu wax moom noonu la leen ay ay firnde ne leen bu ngeen laajee dana am nit ñoo xam ne daañ jógee waxtu sàngam béréb sàngam bu ñëwee boo leen laajee ndox ma ñu muuloon ba ñu yeewoo fekk nañ ñu naan ko man mi maa ko naan jëkk ja nga xam ne seen gëléem dafa rëccoon dama tegtal leen ko bis sàngam daal ñu ñëw bu jant bi di fenkee ba dox ma nàngam te bu ñu ñëwee foofu bu ñu ñëw gëléem goo xam ne gëléem nga jiitu gëléem gu doomu taal lay doon dafa sëf saako yoo xam ne dafa am rëdd yu xaw a xonq ba waxtu woowu mu waxoon jotee ñu daal di gaawantu daw taxaw fa kii ba di xaar ñu daal di gis na mu ko waxee woon jigg ja ni ñëwee gëléem ga la mu sëf na mu ko waxee woon ñu ñu laaj leen ñu nettali ko ni gëléem gi seen gëléem ni mu dagg réer ak ni mu leen ko nettalee te mu ngi fii mbir yooyu la demee xam nga démb rek ci conférence maa ngi koy wax euh, nu mbir mi demee woon waa bi ñu wax Kawsara gannaaw siraat la wala lu jiitu siraat te ma di leen wax ne suñu borom mën na laa wax dara fu mu nekkul mën na laa woon dara fu mu nekkul <laughs> kon waxtu bi jot na. kii na.